asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit bokki taalibe ci kilifteefu sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif zaal fi yàgg lool te ci ndigalul sëriñ Abo Mouhamed Mbacké xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun yàlla na ko suñu borom yàggal te ak wéram ak ci turu mbooleem sëti sëriñ Moudou Mamoun yëpp ak njabootug maam Cheikh gépp sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké xalifa sëriñ As moo amaat mbégte toogaat ci jataay bii nga xamante ne bii jataayub sant yàlla la ak fàttaliku ànd ak ay rakkam ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi ngir waajal bis bu tedd boobu nga xam ne ci lañ daan fàttaliku Serigne Ass Guédé Mbacke ibnu Cheikh Mahamadul Mamoun Mbacke bi ko fi sun borom jëlee yóbbu ko àjjana ci weeru koor bis boobu nag war a doon le première avril dëppoo ak fukki fan ci weeru koor gi moo tax ñu toog fii ci këram fas yéene seq ak jataay bi sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké moom sëriñ As Guédé mi nga xam ne mooy wax ci turu sëriñ Sidi waaye ak sëriñ Mame Balla Guèye mi nga xam ne mooy wax ci turu mbooleem ñi nga xam ne ñoo yor wàllu alxuraan ji ca di ko jàng te ko xam sëriñ As Guédé xam taxawaay yi nga xam ne amoon na ko ci daaray alxuraan yi waaye kuy jàng alxuraan waaye nag danañ jox kàddu gi itam Serigne Falilou Kane mi nga xam ne mooy wax ci turu mbooleem ñi nekk ci diaspora bi waaye di wax it ci mbooleem dongo yi nga xam ne ñi ngi ci biir réew mi te fas yéene waajal bis boobu nga xamante ne bi bis benn bis gënu koo màgg muy bis biñ koy fàttaliku di ko ci ñaanal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa Serigne di Makhtar Mbacke xalifa Serigne As Guédé di ko ñaanal sunu gën ko fee yàggal te wéral ko ak mboolem njaboot gi yëpp. bu ngeen gisee jataay bii nag ne ko sëñ Fallou Gallas waxee rek mooy bis boo xam ne dafa dëgmal mooy bis bu ñu fàttali ko sunu jàmbaar ja di sëriñ As Gédé Mbacke sëriñ bi nag di ci soññ mbooleem taalibe yëpp waaye di ci woo mbooleem mbokk yëpp rawatina ñu bokkal Mame Maharam Mbacke ak mbooleem ku ñu bokkal Mame Mor Anta Sali ak ku bokkal yoonu murit mbooleem fa ab nekk ci yoonu murit sëriñ baa ngi la ciy woo waaye di ci woo it njabootu boroom gaawan gépp la ko tàmbalee ci. buntu kër Cheikh Mouhamadul Mamoun yëpp euh, dem ba ci buntu kër sëriñ Abdul Góora mbooleem njaboot gu góor gi ak njaboot gu jigéen gi yëpp sëriñ baa ngi leen ci woo di ci euh, sàkku seenub teewaay ak seen ay ñaan bis bi nag li ko waral mooy fàttaliku nituk yàlla ku fi nekkoon doon dundal lislaam ak di dundal ak bokk ba xëy wane gannaaw ñu di ko fàttaliku la ci jiitu ci fàttaliku nag mooy jàng alxuraanul karim ak jàng ay xasaayit waaye def ay bernde ngir berndeele ko mbooleem njaboot gi nga xam ne teewe nañu bis bi sëriñ baa ngi ciy sant bu baax di ci woo ñëpp bàyyiwut kenn góor ak jigéen mag ak ndaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaare gi turu sëriñ siir yi xalifa Cheikh sëriñ As Guédé ñaan yàlla gën ko fa yàgg lool te wéral ko comme ni ko sëriñ Fallou waxee sëriñ Mudu Roqee rek damay wuutu Baye Bass Sylla bi nga xam ni ku ne xam na ko ci alxuraanu karim waaye ku ne xam ko sëriñ As Guédé di woo seen yi nga xam ni ñoo nekk ci biir réew mi rawatina waa Daaru Salaam waa Touba incha allahu taala sëñ Sidi bëgg na tey jii di ñaari fan ki weeru koor jëm bis ba nekk bisu màggal gi muy fukki fan ki weeru koor ñu tàmbali kaamil incha allahu yéene lépp yool bi sëriñ As Gédé waaye rawatina bis ba nag moom bu ñu xëyee. dañ ko daan defee ci kër gu mag gi rek daara yëpp ñëw ànd ko sëriñ si de njaboot gi bu fas yéenee jàngal alxuraanu karim ba bëccëg incha allah ñu xatmu door a jàng xasaayid incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi siyaare suñu sang bu baax bi ci suñu ginnaaw di sëriñ Sidi ibnu sëriñ Asgade ak mboolem ay rakam yëpp di siyaare mag ñu baax ñu fi nekk yëpp rawatina Baye Cheikh mi nga xam ne nii mag la ci kër gi ak Baye Mamoun Cissé jërëjëf mbokk yi ñoo jot a dégg kàddu yi bis baa ngi noonu ñu di ko defal sëriñ As Guédé Mbacke sëriñ Sidi nag nee na mi ngi koy yëgal mbooleem seex si aju woon ci kër borom gaawaan la ko tàmbalee ci kër sëñ moor faati ture ba ci mbooleem koo xam mbooloo mi nga àndal euh, sëriñ gaawaan moo ko boole woon ak sa wayjur waaye di ko yëgal bokki boppam yi nga xamante ni ku tudd sëriñ Asgetu tudd leen di njabootuk soxna may mënatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim ak njabootuk sëriñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ Touba Xadim Rasul waaye di ko yëgal nag mbooleem buntu kër yi ba yëpp yëgle boobu mu teg ko ci loxol sëriñ Daam Faati ngir mu tegal ko ci loxol sëriñ Deqle Silla ak mbooleem juróom-ñaari penc ci Tayba yëpp bàyyiwul kenn sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal mbooleem jàngkati alxuraan yi ci njiitul sëriñ Mamballa Gueye mi ànd ko ak Baye eh, sëriñ sëriñ Basiru Silla ak mbooleem waa Tayba gépp nee na mi ngi ñaan képp koo xamee yor nga daaray alxuraan foo mën a ne loo mën a jàng ci alxuraan nga jàng ko def yéen a yool ba sëriñ As Guédé Mbacke te ñu yéen waale ko nag way juróom yi ak magam yu baax yi nga xam ne ñoom la bokkal tëdd foofee ca wetu borom gaawaan ñi ngi séntu ñëpp fukki fan lay doon incha allahu rabbi ci weeru koor sëriñ bi nag nee na dana la ci fàttali ko waale eh, sëriñ maam Cheikh Anta Mbacke mi nga xam ne moo jëkk wutu sëriñ As Guédé ak soxna maam Boussa Bali Mbacke mi nga xam ne tax waay bu ràññ la ci amoon ñu ñaanal leen boole leen ca ba ñaan sun borom jéggal leen te yërëm leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.